ak ñicc loolee nag kii di Mahmoud Fall dellu siwaat ci ana naka la mënee doon wàllu outil de développement jaareele ko ci wàllu alam gi tax nag muy woo autorité yi nekkee ci collectivité territoriale yi ñu gën a sóobu bu baax ci liggéey bile ngir gunge leen ba mission yi mën a yomb réserve bi dama wax ni maanaam euh, moyen la wàllu outil la de développement pour ces communes la pour communes yooyu ndax sur le volant de sur le sur le sur le si wàllu environnement lu bare mën na si jóge si wàllu koom-koom jëm si population bi jëm si si communes yi kon tey taxawaay boobu ni ngi xaar si commune. yi tey ñu am beneen taxawaay vis-à-vis de l'association te di daan si dox wax si def si plaidoyer ba nga xamante ni si ñoom ñëpp ñu xam importance su wax de yàlla commune bi kon kii bi euh, ay jayel euh, bi macha lile di ab daje buy wonewaat jëmm ak taxawaay ak njëriñu Hiv Ndiayele ci goxu wàllu yi président Mahmoud Fall wéyal tamit ay kàddoom jëmale ko ci gestion boo xamante ni daf koy jaarale ci wàllu transparence fexe yorin wi yëpp leer waaye nag yamale ñëpp ci askan wi te it nag jox nopp kenn ku ci nekk ngir mission bi mën a yomb tax loolee mën a jur ndam rek ci Hiv Ndiayele mi nga xamante ni mi ngi nekkee ci goxu wàllu yi te mu jàpp rek ni ci développement socio-économique ko ramit lepp lu jëm ci walu région de Saint-Louis